renforcer sa administration ba mu dëgër loolu mooy les appareils de l' état loolu bu dëgëree rek état bi day dëgër.

Euh, boobu des cas mi intervenir si ben enquête bi nga xam de itam dafa neen ko foncière les gens de la section de recherche euh, s'intéressent particulièrement à cette affaire euh, de terrain qui suscite un vif intérêt Madame. le frère de Adama Seck le frère de Marem Faisal, le di ki nga xam ne de Adama Faye

suite ak décision bi nga xam ne Ousmane Sonko Diomaye Diakhar Faye jël nañ ko arrêté toute construction exactement li daal littoral en tenant ñu tëjji une commission ad hoc allant dans ce sens exactement alors donc euh, Serigne euh, le frère de Marième Faye Adam Faye a été appréhendé euh, par la section de recherche un problème toujours qui revient et que mingi persiste si le souci fi Sénégal. il faut il faut il faut que ñu xaar ay arrestation yu bari Sonko moo ko wax waxeewu ko nak ni ma ko waxee. li ñu war a leeral bëri na. li ñu war a leeral bëri na. Hmm. te képp ku waxoon ni nga ko waxee Sonko moo ko wax. Hmm. du duma ne nak ñi ñu commencé interpeller ñoo def. parce que lolu justice mo koy apprécier mo hmm. koy juger. mais ce qui est sûr et certain képp ku laalé taqe ci loo xamante ni sa yoon nekku ca di ko layo ak justice. en tout cas que justice soit faite ñu laalé ci alalu réew mi yépp te ñu ci laalé dañ wuy ji en tout cas ñi ñu ngi def la def ñu ngi liggéey ñu ngi de ñu ngi ñu ngi mais est-ce que cette arrestation ne risque pas de susciter encore une fois une vague. non non ah non non non non gis logique bii nañ ci dëgër fit te dem seen yoon bu leen doon Sénégalais continuer logique te sénégalais yi du leen ci mere de. du leen mm. gën a encouragé. Mm. parce que lii sénégalais yi ñoo leen ko sant. ba leen di fal ñoo leen ko sant. Mm. ne leen suñu alal fu mu dugg génne leen ko foofu la leen gars yi di xaaraan ah. gars yi xaar ñu leen ci ay immeuble de ak i yu rafet de. ñu leeral dama ne la Diomaye Faye ak Ousmane Sonko sénégalais yu bëree bëri xaaruñu leen ci ay étages yu rafet wala ay tali yu rafet donte nag loolu bokk na si lu ñu war a def. mais fa leen sénégalais yi gën a xaare bilan matériel mooy lag ñuy guux te waruñoo guux daal di guxi mm. est-ce mm. bu leen ci ñëpp doy dee mere nañu dem jusqu'au bout du bout de cette logique là ku jël alalu askan wi na ko dindi faal na ko na ko na nga delloo mm. loolu mooy dëgg loolu mooy yoon ku jël alalu askan wi na nga ko delloo ci askan wi parce que tey gis nga dund gi fi mu toll jafe jaan jafe yaa ngi ni taxaw ay ñetti nit ñeenti nit bëgg a séddoo réew mi bëgg a seddoo li nga xam ñëpp a ko bokk loolu kan moo koy seetaan hmm. en tout cas entreprise bi ñu jël nañ ci góorgóorlu te dem ci jusqu'au bout gën ci dëgër fit xam ni sénégalais yi leen fal ànd nañu ñoom ci lii li Sonko wax dëgg la hmm. kenn waru leen mettre la pression te ñoom waruñu ko sax nangu hmm. ñoom bu amee kenn ku leen war a la pression mu naqari leen mooy ña leen fal mooy jeunesse bi nga xam ñoo taxaw jaayante seen bakkan ba fal leen maintenant jeunesse bu taxaw jaayante ba kanam ba fal la te la mu la falee la ca gën a am solo mooy alal ja alal lam jëm nga xamante ni ay nit a ngi koy pàccoo nga fexe récupérer ko ko am foo ko ko defal mais ñoo xamante ni faluñu la faluñu la buñ sañoon doo falu ñooñu mën nañ la mettre la pression ba mu yëngal la. non nañ waxante dëgg itam moo tax ma ni lii entreprise bi nañ ci góorgóorlu képp ku yoon war a interpeller ci moomeelu askan wi nga jël def ko sa moomeel te du sa moomeel. mais nga ko hmm. alors c'est clair c'est oui c'est clair donc euh, ñu daal di jall exactement euh, sur les nouvelles nominations comme naa ni une édition spéciale comme tous les mercredis donc coono nak amoon na nomination yes tak ki nga xam ne comme euh, madame.